di fàttali tuuti rek ay kàddu yoo xam ne dafa bokkoon ci biir waxtaan wi te yàlla def fa an fa anshaahu sheytaan mu war ko cee dolliwaat ci ay leeral ba ci jiitu rek mooy xam ngeen ne bu weeru màggat gi sànn dugg safariyaat yi nga xam nit ñaa ngi koy def te daaw sax am na lu ma ci waxoon ci kanamu sëriñ bi ci ndigalam loolu nag sëriñ bi ne mi ngi fàttali bokk taal bi yépp ne nañ xam ne loolu daf mel ne ci baaxiyaatu saalihaat la bokk baaxeetu saalihaat nag kenn du ko tere ndax lu baax nag waaye nag léeg-léeg jëf mën naa baax waaye fu jëf tàbbi ju jóge ngir jëm ci lu baax rek seytaan de làng moom ndax demoon na ba gàllankoor di ci bëgg am ndax nit ñi dañoo demoon ba jël safari di ko màggal bu ñu àggee ca bis ñu bàyyi ko wala lañ ci woon def wàññi te xam ne nag màggal gi bu ñu koy wax mooy bis ba ndax loolu la ndigalu Sëriñ Tuubaa kon ñi nga xamante taalibe yëpp na liñ daa dajale di ko def ci safari yaat yi nañ dajale lépp ñëw ko ci dabbal ko ci bisu Sëriñ Tuubaa bi loolu mooy ndigalu sëriñ bi ndax lu baax lu mu baax baax kat eh, nga am ci ndigal mooy lu ci ëpp solo kon ab sart la ci li ngay def amal la jëriñ mooy ndigal la kon lañ ci daa def ñoom nañu bàyyi xel ci di ci sensibiliser nit ñi ci waxtu wi ngir ñu xam fi jàngoro ji toll ak fi àdduna si toll ngir ñëpp maanaam moytu na ngir ñëpp war a wattandiku ba nga xam ne ñëpp danañ màggal sa jàmm delluwaat sa jàmm sa dara du leen fa toppee loolu bokk na ci li jiitu ci li ma waroon li ma waroon wax ba ca dolli ko itam biir pénc mi xam ngeen ne écran yi dafa daa bari loolu itam luñ ko gën a mën a wàññi rek ndax gis nañ ne mbooloo mi dañ ci daa daje di seetaan ba loolu itam dana mujj jur gàllankoor kon loolu lépp itam ñu seet ni ñu ko gën a mën a tose rek ci biir quartier yi mooy la gën di ca dolliwaat itam biir siyaar yi ci biir jumaay Tuubaa loolu itam dañ xam ne aadabu ziyaara dafa am ku jëm si ci kanam Sëriñ Tuubaa mu wóor la ne dangay ñëw ngir teewlu si ngir lu rëy yëkkati la fi nga jëm itam gënal la fépp danga ko fa tëdd moo la gënal lépp mu wóor la ne mu ngi ak janaw yow kon foofa ku fay tàbbi war nga ànd ak teewlu gu rëy war nga ànd ak yëg gu mag gu mag ci sa digg sëriñ bi waaye war naa ànd war naa ànd ak ay teggin siyaare rawatina ñun yoonu murit nit ñi ñépp xame ci ay teggin kon dugg ci biir jumaa ji di ko boole ay yuuxu loolu bokk ci adabu siyaare mm-hmm. kon lool itam waaw mu xaddamu xidma ñi nga xam ne ñoom la nekk seen loxo nañ ci gën a bàyyi xel ci di soññ nit ñi waaye taalibe yi ñëw itam nañ bàyyi xel ci ne jumaa ji di barab bu ñu yuuxoo du barab bu ñu foy barab la moo xam ne mooy fi gën a màgg ci ñun mooy fi gën a tedd ci ñun ka fa nekkee gënuñu lépp kon loolu itam war nañ koy bàyyi xel bu baax di ko jeexale nag ci yi nga xam ne soppi nañ ko leen ci màggat gi mooy ku ne xam na ne bari na ay gan yu daan jóge bitim réew ñi ñu leen di ñu leen ci invité ñu ñëw di ànd ak ñun màggal yi ñun ñëpp nag ren ngir xam fi waxtu toll moo tax ren jéggal nañ leen ba déwén ak jàmm incha allah euh, waa ambassadeurs yi nga xam ne ambassade ambassadeurs yi ne Sénégal te teewal fi seeni réew ñooñu ñëpp itam dañ daa ñëw ci bis bi di ko ànd ak ñun ñooñu ñëpp itam ngir xam fi waxtu toll ndax ñun bu fekkee dawuñ ko it ñoom xam nañ nañ koy dawee kon loolu itam ñëpp dañ leen koy jégal ba déwén ak jàmm wooyu falal leen ko rek mu bañ a diis ñun ñun ñi nga xam ne nag li ñu dund suñ duggee sëñ bi jaaral nañu lu ko ëpp ñun moom loolu moom moom moom fañ ci nekk rek mooy fa ci ñëpp nekk kon loolu daal mooy liñ ci doon fàttalewaat rek salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu